أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حامل لواء الحمد سيدنا محمد المكين وعلى أصحابه وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة bokki M Media Group Nourou Daarayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nungul ñu suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñu yëpp rëcc-rëcc bi jaay seyna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dolli ñoo defal tawfiix ba nu gën a mën a jublu ci jaamu yàlla gi nga xam ne gi moom rek a tax moom yàlla mu sàkkunu andinu fii ci àdduna te it mu doon kër goo xam ne gi gu yàggadi la yàggut dara dañ fi jaar di jàll rek te ci lañu war a lijjante sunu mbiri àdduna yépp ci kàttan ak yàlla ak yërmandeem waaye tamit teraanga ja nga xam ne ji moom la ñuy dunde àllaxira it fii ci àdduna lañu koy sàkkoo kon àdduna xat na xataay boo xam ne bii ak doomu aadama itam lim fi nekk néew lool lool te na xam ne ñaari tomb yooyu yëpp maanaam moo ko wër war koo lijjantee fii ci àdduna kon yal nañu yàlla doole dimbali doole ñoo tawfiix ba loolu di di ko bàyyi xel bu baax a baax ba nga xam ne lépp loo xam ne lii lu nu war a def la rek ci loo xam ne lii maanaam ci sunu wàllu àdduna la muy lu nu sunu diine may ñuy góorgóorlu ca loola waaye tamit nan ca jiital lépp loo xam ne lii moo nuy may teraange àllaaxira maanaam ñu nekk ca loola ndax àdduna moom noonu lañu koy yàlla bindale mu xat lool waaye mu nattoonu ñaar yooyu yëpp tamit fi lañ koy sàkkoo comme ni mu ko waxee wabtaxi fii ma ataaka allahu daaral axirata wala tansa nasibaka min ad-dunya bi nga dane yow nit ki yow sama jaam bi na nga góorgóorlu ci jiital ci lépp loo xam ne lii moo lay defaral sa kër ak àllaaxira maanaam nga nekk ca loola ba loola féete mat maanaam du mat sax waaye ci fa nga ca toll ca la nga ca war a def rek nga def ko saa bu jotee maanaam ne na loolu moo la war soo ko defee nag ba noppi muy wàllu jaamu yàlla gi nga walbatiku nag doog a nekk ci sa yittey àdduna kon daal liy tawfiixi nit daal muy ab jullit rawatina te yàlla nañ ko yàlla defal mooy sunu mbiri àdduna yooyu ak sunu mbiri àllaaxira yooyu nu jël sunu àllaaxira jiital ko teg àdduna nale ca wàllaam nale su ko defee lépp loo xam ne lu dul jaamu yàlla la rek su jotatee moo xam ay wax la moo xam ay jëf la maanaam ñu daal di nekk ca jaamu yàlla googa ba loola jàll su ko defee ñu ñëw wëlbatikuwaat nekkaat ci suñu mbiri àdduna ndax noonu lañu ko yàlla dim digalee te noonu lañ ko war a defee itam ndax àllaaxira moom mooy fa nga xam ne fii bu nu fa demee moom day sax di wëy rek dara dootu fa jeex amatul fenn fu mu yem te adduna moom lu mu yàgg-yàgg ak lu fi nit yàgg-yàgg rek ak lu mu fi mën a amit rek maanaam da ko fi bàyyi daal di koy won ginnaaw su booba bu fekkee ni dafa nekk loo xam ne lu doon jiyoyo ak ak lu neexut yàlla la wala yàlla billaahi su boobaa day waral nit ki fale ca kër gee rek mu di ko fa andil ay coono ak i naqar ak i métit yoo xam ne yi ay tartar lay doon yoo xam ne yu xawee yàgg lay doon yàlla nañ ci yàlla musal kon may dénk sama bopp rek di dénk mboolem mbokki jullit yi rawatina ñun ñi nga xam ne yàlla dañoo boole ñu nekk ci liggéey bu sell bii ñu taxaw ragal yàlla rek ci suñu yëpp jamono rek suñuy guddi ak suñuy bëccëg pour mën a toll rek di góorgóorlu fexe jël àllaaxira teg ko ci suñu kanam dog cee teg àdduna te it ñu di leen ndokkeel bu baax a baax ci weer wu sell wi ñu nekk muy safar waaye tamit bés yu sell yi ñuy dund. am ci bés bu ràññeeku bu am solo boo xam ne bi dafa am solo lool ci ñun muy fukki fan ak juróom-ñett yooyu nga xam ne yii moo tombeek bés bi nga xam ne bii ci la xaadim rasul am xewalam yu rëy yooyu ko xam ni moom la ko yàlla defal ba mu di ca sant yàlla ba mel ni santam googu da ko doyatut ba mu woo ba mu woonu nun taalibeem yépp ne na ngeen ma ci sant la yàlla saa su ñëwatee loolu yi tamit lépp luñ ci def ci jaamu yàlla rek yal nañu ko yàlla nungul te mu doon ak santale ko xaadimu rasul moom nga xam ne mi moo ci sant boromam ci li koy ci yàlla defal ci ay teranga fii ci àdduna waaye tam ak lam ko ci dencal ci teranga ak àllaxira yoo xam ne yii yal nañu ko yàlla boole ak moom boole nu ko ak moom bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ci yàlla doole defal tawfiq bu baax a baax ñu fekke koy ati at yu baree baree bari te saa bu ñëwee rek yàlla gën ñoo yokk xéewal ak man-man ak kattan ba nun nun ci sante ren rek su ëllëgee maanaam ñu tàmbalee ci loolee defaate lu gën a kawe njortu lu gën a kawe lan defan bi jëy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu di ci ndokkal ne kilifa gi ak cheikh abdul ahad mbake di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu dolli ko jàppale dolli ko dimbali moom itam ba lim bëgg a liggéeyal maamam lépp yàlla jàppandal ko ci defal ko ci lu koy njortam te ñu ànd ko ak moom te it li mu yéene jaamu yàlla yëpp it yal na ko ko yàlla defal ndax moom jëmm la joo xam ne ji ku baax la ab taalibe la ab jullit la di ko dund di doon liggéeykatab xaadimu rasul am ci yéene lool bëgg ko lool nekk ci lool nag itam ci ay waxtu yëpp kon sëñ bi yal na la yàlla gën a kàttanal gën laa dëgëral gën laa taxawu sa yéene yi nga yéene daal yal na dal jaam ñi daal ndax yow xam nañ ne moom yow sab xol moom la ca nekk mooy bëgg Xaadimu Rasuul tey fas ko yéene liggéeyal waaye tamit bëgg ci njëriñal àdduna ak àllaxira loo xam ne doo ko yéenewu ko sa bopp rek waaye da nga ko yéene mboolem jullit yëpp rawatina ñun taalibe yi nga xam ne ñoo doon taalibe Xaadimu Rasuul kon loolu yal na la ci yàlla defal lu ko njot doon la ca defal tawfiq dañu ànd ko yow di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey it ñuy jël suñu ne suñu nuyoo ak suñu ziyaare di ko jàllale ci mboole mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokk liggéey bu sell bi yëpp moo xam góor ñi la wala jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir jataay bi yëpp nekk ci suñu kanam ñu jël ziyaar boobu rek ak nuyoo boobu itam di ko teg ci loxol suñu kilifa sëriñ diir suñu mag ju baax jooju wax dëgg yàlla moom itam di ko ñaanal moom itam ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir liggéey bi nekk ci suñu kanam daal ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàggal leen ci suñu kanam bu baax a baax a baax te it liñ ñuy li ñuy ñaan lépp itam yàlla na ko yàlla nungu te boole ñu ko bijjaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziyaare di leen ndokkeel góor ñi ak jigéen ñi soxna yi ci biir itam ñoo leen di beral suñu ziar bu baax a baax a baax te it di bëgg ci ñoom lool di leen gën a sant bu baax a baax di jël nuyoo boobu yëpp di ko teg ci suñu yaay rek soxna Satu Diop yaay xaadim ñi ngi oustaz moom itam bu ñu ko tegee ci loxoom rek mu maanaam man ñu ko jotuleel mboolem mbokk yi nga xam ne yi yu soxna yu jigéen soxna yi nekk ci biir liggéey bi ñu yàlla boole te ñoom itam ñu doon ci jàmbaar lool doon ci góor lool ñoom itamit ñoo ngi leen di sant bu baax a baax fu ñu mën a toll rek suñu xel ñu ngi ci yéen. kon liggéey bi nga xam ne bii yàlla dañu ko baaxe nag nu di ko liggéeyal xaadimu rasul nañ ci sant yàlla bu baax a baax te gën cee jublu nag nañ ci gën a jublu ñu ngi ci nag waaye nañ ci gën a jublu. gën cee farlu ci lépp loo xam ne lii lu koy jëme kanam la maanaam ñu fas yéene nekk ca loola loolu itamit ñu koy jël rek dénkaane boobu di ko dénk suñu boobu waaye di ko teg ci loxol Cheikh Mouhamadou Mourtada Badiane rek moom itam mu niir ñu mboolem mbokki borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ne ci biir liggéey bi yëpp itam ñoom itam taxawaay bi nga xam ne bii dañ ko ci taxaw mu am solo lool ñu di leen ci ndokkeel bu baax waaye tamit ñoom itam ñu gën a soññ bu baax rek ci lépp luñ nu mën a dimbalee ci wàllu lu nu war a xam ci suñu diine ñu gën ñu cee jàppale ndax ñu ngi ci sax waaye nag nañ ci gën a taxaw ñoom itam luñ ci mën rek ci yokk ko ak di ko yaatal loola doyut moom itam ñoo ngi koy ziar bu baax baax Cheikh Mourtada di jël suñu ziar boobu moom itam di ko teg ci loxoom di koy ñaan rek mu jot ñu ko mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne yii. ñoo ne ci biir liggéey wax da yàgg yàlla di ñu dimbali di ñu saasu na ñu ni xamal ak di ñu fàttali loo xam ne lii lu jëm ci suñu wàllu diine la bu doon lu am solo loo xam ne lii dafa am solo lool lool lool lool ci liggéey bi loolu itam yal nañ ci la gën a jàppale gën leen a taxaw bu baax a baax bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit duruskat yi nga xam ne it yàlla dafa dogal dogal ñu ne ci biir liggéey bi lu mel ne alxuraan diñ ci jàng ak xasida yi nga xam ne wàll moom itamit jëwriñ ji moo koy yore Sëriñ Muudu Juuf moom itam ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel ci liggéey bu am solo boobu ndax njàngam alxuraan ak xasida moom dafa am solo cib taalibe cib jullit am solo goo xam ne gii bu nu yàlla dimbale ñuy am ak groupe boo xam ne bii alxuraan ak xasida lañ ca jiital yàlla defal nu tawféex yi jàpp na la nu ko ba semaine bu nekk muy àjjuma ju nekk moom Sëriñ Muudu mu jiiteeb kaamil ñu jàng ko di ko xatma ci àjjuma ci ak liñ ci jàng ci limam xasida lépp loolu itam tawféex ju rëy rëy la te Sëriñ Muudu moom itam taxawaay taxaw ci taxawaay bu am solo bu rëy boo xam ne bi def ci yitteem yépp nga xam ne li ma doon wax sàng nii rek naan da nga jël sa jaamu yàlla gi jiital ko dog caa teg sa mbir àdduna maanaam noonu la ciy doxale nga xam ne moom lu mu lu mu mën a nekk rek saa buñ demee ba kaami bi mat day daal di teg yitteem yooyee daal di tàmbaliwaat kaamil bi jàng ko daal di yëgle ne tàmbali na ab jukkeem jàng na ko ku nekk boo jàpp ne mën ngaa jàpp mën ngaa jàng sab jukke loolu itam yitte la ak it bàyyi xel li nga xam ne li moo la war ba tax maanaam da ngay góorgóorlu ba lépp loo xam ne li daal yëfi àdduna la moom bu ñëwee toog jaamu yàlla toog rek nga dem ca jaamu yàlla ga ba loola jàll loolu itam ñoo ngi ko ci ndokkeel bu baax di ñaan yàlla yàlla gën koo dëgëral gën koo taxawu bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak loolu lépp nag kon ñuy wax alhamdulillah di ndokkeel itam jëwriñ ji ki nga xam ne kii moom la yàlla dogal mu nekk ci am xelam mu xalaat ko mu xam ne lu baax la moom itam yàlla defal ko ci tawfiix sëriñ bi defal ko ci tawfiix mu doon liggéey bu am solo mu xalaat ko woonu ci woo ci bépp taalibe muy Muudu Ngom mi créé groupe bi wax dëgg yàlla moom itam noo ngi koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu gën koo dëgëral gën koo kattanal te xam ne defal nañu lu am solo lu rëy rëy loo xam ne lii maanaam yàlla rek moo ko ci mën a fay ndax loolu yonente bi waxam ne boo góorgóorloo ba yàlla gindi kenn ku réer ci nit ñi nga fekk ku réer yàlla dimbali la maanaam ba nga gindi ko ci kàttan ak yàlla rek ne ne loola la la ca yàllay feye moo gën buñ la joxoon àdduna ak li nekk ci àdduna lépp ne la yaa ko moom ku te groupe bi wax dëgg yàlla ni mu amee solo ci ñu baree bare di ci mën a xamee seen diine waaye tamit ñu ci baree baree bare sàggana lool ci wàllu jàng alxuraan ak jàng xasida ak yu demee noonu te ku ci góorgóorlu lu mu néew ne nga man di ci mën a nam nabi lu mu néew ne ngir groupe bee tax loolu lu rëy rëy rëy la lu ama am solo loo xam ne lii moom itam wax dëgg yàlla lam cay amee daal yàlla rek moo ko xam yàlla na ko ko dencal te it maanaam fii ci àdduna mi mu fajal ko ci ay aajoom fajal ñu ko ci ñun ñëpp zahiran wa batinan bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom it mu xam ne lu mu góorgóorlu rek doyut ndax lii tawfiixu Serigne Touba la ndax Serigne maanaam yàlla moom ku mu bëgg rek da lay liggéeyloo Serigne bi it mooy tànn ay taalibeem mooy tànn ñi nga xam ne ñii maanaam ñoo koy. liggéeyal kon bu doonee ab tuut tànk maanaam doon gone waaye xalaat lu rëy lii lu baax li lu am solo li na xam ne tawféex Serigne Touba la te Serigne Touba moom ku mu bëggut a jariñ rek maanaam du la liggéeyloo kon moom itam yàlla na ko yàlla gën a jàppale loolu li ko defal tawféex bi jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mu xam ne la yonente ba wax rek sallallahu alayhi wa sallam noonu na képp koo xam ne kii sàkk nga aw yoon xotti nga aw yoon xàll nga aw yoon waaw xam ne bii lu baax la nga def ko ne ne yoon woowee nga xàll muy lu baax loo ca mën di def rek yàlla dala koy fay defal la ko ab yool mu di la xaar fële ca àllaaxira waaye itam képp ku la ca roy rek ci lu baax loolu nga xam ne nii moom moom ngay def ku la ca roy rek la nga cay amee ci lam cay amee ci ab yool yàlla dala cay jox yow itam lu toll noona te du wàññi ca yoolab keela cay roy dara kon loolu it lu am solo loo xam ne lii su xalaatee lu rëy lu màgg lu baax lii mooy lu baax mu di ko def yàlla di ko ca defal loola waaye te it képp ku ko ca roy képp ku ci bokk rek di yëngatu ci liggéey maanaam di am yool boobu lu toll noonu itam ñu koy nattaat di ko ko delloo su demee bañ ko koy fay defe naa lu mu ci góorgóorloon kon def na ko rëccu tey day gis day commencé itam di gis njariñ li ci lenn ci njariñ yi fii ci àdduna gi nga xam ne gii moom la ñu dund kon yàlla na yàlla doole defal tawfiix doole ñëw dimbali te ñu gën a jubluwaat ci liggéey bi daal suñu kéemtalaay kattan rek xam ne luñ ci góorgóorlu rek doyut ndax sëriñ bi moom mënuñu koo fay lu dul jox ko xol yi jox ko jëmm yi jox ko sunu jamono ci lépp loo xam ne lii lu xeetoog fànn googu la ci liggéeyal ko bëgg ko sopp ko di ko joxe addiya joxeel addiya ngir addiya moom itam lu am am solo lu rëy rëy loo xam ne lii la ca sëriñ bi wax ci ay xeeti xéwal yoo xam ni yàlla da koy defal nit ki joxe addiya moom benn boo ci xool rek day jariñ ku mën doon ci ñun léeg-léeg nga sàkk addiya ju am am solo jox ko koo xam ne kii xañ na ku ko yooyoo la koo xam ne kii dala koy denc rek ndax dala koy dugal ci liggéeyal islam bii wala mu def ko feneen foo xam ne ci l'islam ji dong lay ñëwaat su boobaa loola yi tamit nekkati tawfiix yu rëy rëy yoo xam ne yii soo demee bañ la koy fay mu nekk saaxir loo ca defoon ci addiya rek loo joxewoon ci addiya rek da nga ko xeepa kon yal na ñaar doole jàppale bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñoo xam ne nag xaadimu rasul mi ñu yàlla booleel yal nañ ko yàlla fayal yal nañ ko yàlla fayal yal nañ ko yàlla fayal mënuñu ko fay dara dara lu dul rek jox ko suñu xol yi waaye di góorgóorlu ci lépp loo xam ne lii lu muy digle la ñu cay def suñu kéemtalaay kàttan waaye itam lépp loo xam ne lii bëgg ko lu muy tere la loolu nu bàyyi ko ndax moom dañoo dimbali ci fànn gu mu mën a doon dimbali ci lu nu xam ak lu nu xamut lu nu yëg ak lu nu yëgut lu nu gis ak lu nu gisut lu nuy dund ak lu nu dund lépp fànn gu mu mën a doon rek nañu xam ne xaadimu rasul taxaw nañu foofee ndax li gën a am solo gën a rëy muy sunu bokki julli ya nga xam ne dañoo nekk àllaaxira nga xam ne dañ naa kenn xamul ci ñoom kenn xamul ci lu ñu nekk kenn xamul lu ñu bëgg xaadimu rasul dafa wax ne ñooñee nekk barsax day li ñu gën a bëgg ñoom foofu ñu tëdd ca bàmmeel ya li doon seen gën a li ñu gën a gën a bëgg nga xam ne moom bu ñu ko amal rek maanaam mel ni am nañu liñ seeni bëgg-bëgg yëpp mooy yàlla dekkalaat leen andiwaat leen fii ci àllaaxira fii ci àdduna ñu ànd ak ak roox ne ne loolu mooy doon li nga xam ne lii moom la ñu gën a bëgg fi mu ne nii ne ne bëgg dikk googu ñu bëgg an dikkaat ci àdduna gi nag doonu ne maanaam dañu fay bëgg a ñëw ngir namm seen waa kër ña wala ñu fi ñëw di sàkkowaat alal waaye ne la ñuy bëgg dellu see aduna mooy bu leen fi yàlla indiwaatan rek donte diir bu gàtt gàtt ga gàtt la ñu defal fi yàlla loo xam ne li dinañ ci amee ngërëmal yàlla ak tawfiix yoo xam ne buñ demee maanaam gis ne dañ cee yokkuwaat bu baax dong dañ cee yokkuwaat bu baax a baax loolu dong maanaam ne ne moo tax ñu bëgg dellu si waat ci aduna si kon gis nga ko lu mel noonu bu la ko kilifa gu mel ni waxee xaadimu rasul waxee kon war nga xam ne war nga cee jàngatewaat bu baax a baax war cee mën a soñas bu sa bopp bu baax a baax ci lépp loo xam ne lu baax la nga bañati koo xeeb bañati koo wàcc bañati koo nig nigal te su ne ci sam xel rek soo ko mënee nga def ko bu ne ci sa bu dee wax la nga daal di koy wax ndax ne ne ñoom loolu dong lañ bëgg loolu tax mu daal di ca tegal ne ne ne nag kon yow mi fi des yow Xaadimu Rasul mooy wax ne nag kon yow mi fi desati na nga góorgóorlu ci sa yëpp waxtu lépp loo xam ne lii lu baax la rek maanaam buural jëm ci loolu te bul ko waajati na nga ca daal di nekk waaw mu daal ne wa argabul ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya al xayaati walaw suwaayatan faqat li yaamalu saalihatan tanfahum in rafalu mooy gis nga loolu ma doon wax ci ñoom liñ bëgg ak li tax ñu fi ñëw ne ne kon ñun ñi fi des mu daan ni soñe faratani man baaxee omrin xan mola bi xayri taatin wala bi xayri nahda kon mbokk yi mbir mu réy ngi noonu mu am solo mu ñu war a bàyyi xel ci njàngale mu réy moomu sëñ Xaadim Rasul jàngal waxal ñu ña nekk barsax la ñu gën a bëgg te it nañu xam ne Xaadim Rasul ne ne day ñi nga xam ne ñii ñooy samay taalibe aju ci man di def samay ndigal di bàyyi samay tere ne ne suñu ajuwatun ci man doonu ñoon samay taalibe bu ñu deeyee faaw dinañ dem dinañ dem sawra bu ñu deeyee faaw dinañ dem sawra doonte dañ fay sax diir bu gàtt itam waaye dinañ fa jaari rek loolu yëpp gis nga bi anna lazina taallaqu biya lawla taalluquhum biya la daxalu naara baada mawtihim wala muddatan qabla duxulihimul jannata allati wa'ida muttaqun dégg nga kon lii bu la yàlla boole jëmm ju mel nii mu doxal la garantie bu mel nii war ngaa xam maanaam yow ak taalib mooy lan mooy def ndigal ya bàyyi tere ya tey dafa waxaat ne nit ñi day ñi nga xam ne ñu doon nañu ay taalibeem lay wax bu ñu xamal li ma yàlla defal ci xewal ma nekk ak moom fii ne na dinañ gaawtu jëm te loola ngir sàkku ji ko waaye nee nañu ñeneen ñenn ña bañ ko réere rek lañ ma fi bàyyi dem weesu ma fi dem di sàkku jiwaat leneen di ko sàkku jiwaat ci feneen ak ci keneen la law alima naasu maahuna la baadaru ila talabihi walakin lamma jahiluhu talabu xayrahu la wax kon alhamdulillah bi ñu boole xaadimu rasul te loolu yal na ko yàlla saxal bi jay say bi bu jur sallallahu alayhi wa sallam te nu bokk ci mbooloo moom nga xam ne mii yàlla dafay wax yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim bu boobaa yal na nu yàlla defal xaadimu rasul nekk sunu njiit fii ci àdduna ni mu ko doonee nekk sunu imaam ci àllaxira ba ñu mën ne daanaka rek ci moom lañ nuy àtte bu ko defee yal na nu yàlla doole defal tawfiq bi jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ñu jéggalu bu baax a baax itam ci wàllu fatwa bi sama appareil bi moom jamono yi dafa sant caw lool bari ay bang bang lool palankeeg léeg-léeg dafay mel ni sax day xaw a yàbbi ay vocal ak yooyu ba tax na te jamono yi dama neen ci dama doon ne ci wayaasu màggal gi ba fatwaay binduma ko xam naa dafay mel ni ñetti laañ moo fi rotan waaye benn bi maa ngi koy jéglu ndax dafay mel ni dafa ma rëcc dama xamatul xalaat naa xalaat daal waaye xam naa bu ma ngom déggee rek incha allah bu ko dugalee incha allah yal nañu fi yàlla bàyyi ak fekk ak tal bu émission bi dellu si waate rek ñu jéem ko boole ci yeneen laaj bu fekkee yeneen am na fi waaye bu ko defee daal laaj yooyu ñett lan defe naa benn bi dafa may rëcc dafa ma rëcc waaye defe naa jàpp naa ci bopp Basiru Fay muy laaj jigéen goo xam ne gi dafay gis reegal ndax mën naa seeloo ci biir jàkka waaw foofu liñ koy wax dañ ko naan jigéen moom jamono yi muy gis reegal dañu koy tere mu dem ci jàkka di fa sax diir bu yàgg dañu koy tere bu gisee regal daal dañuy bañ mu dem ci jàkka di fa toog toogaay boo xam ne bi bu am ab diir la maanaam bu yàgg lay doon ndax dañ ne donte dafa doon jànge alxuraan sax wala mu di fa jànge xam-xam su demee bay gis regal boobu léegi dañu koy wax toogal ba sa regal boobu jeex te jéem seelu taw la wax ne nit ki bu dee gis regal ndax dañ ko may mu seelu ci jàkka kon loolu am na borom fuqaha borom xam-xam yoo xam ne dañu koy tere dañu koy bañ ndax jéem jàng alxuraan ma sax dañ ne bu ca tolloon na ko bàyyi kon ab taw wax dëgg yàlla am na ñu ne duñ ko may maanaam mu koy seeloo foofu ci biir jàkka ji fekk dafa yore regal bi ndax su boobaa dina def dina tax maanaam mu am fa diir bu yàgg boo xam ne bii moom dañu ko koy aaye beneen bi ci toppaat yaakaar naa muudu ngom la muy laaj ne dafa am dafa gis mbooloo ma xam ne defe naa bésab ajjuma la wax fekk ñu julli jumaa ji ba pare aj julli ajjuma bi ba ba noppi mbooloo ñëw ñoom daal di ber seen julli bopp maanaam noonu lañ ber seen ak julli waaye julli mbooloo lañ ko def loolu yi tamit dañu koy bañ donte boroom xam-xam wóote nañ ci waaye liñ ci gën a jàpp daal mooy ak julli farata moom fu ñu ko defee ci mbooloo maanaam ci jàkka masalan képp koo xam ne kii bokk nga ci julli ga fekk ay rakka raw la buñ dee mbooloo bu imam sëlmale ku nekk da nga war a àggale sa julli bopp su fekkee ni dañoo doon mbooloo itam ñëw ñoom ñépp julli ga raw leen ba amuñu ca dara ku nekk da nga war a liqaam sa liqaam ak bopp julli sa julli bopp beru loolu daal mooy li gën a dëgër ci liñ gën a jàppoo ci li fuqaha yi wax kon mbooloo daal bu ñëwee fekk jullik farata ga moom imaam ja julli nañu ba ba sëlmal ñoom ku nekk da nga war a dem ak sa jullik bopp te réwut it boroom xamoy ne na am na ci ñuy wax dañuy wutee ne bu ñu jullee jullig mbooloo itam baax na waaye daal li gën daal mooy ku nekk dem ak sa jullig bopp ndax ne ne ñi fi jiitu woon daal saxaaba yi ñi ci topp ak yooyu mosuñoo gis benn yoon maanaam ak julli rew mbooloo ñoom ñu ñëw daal di julliwaat geneen jullig mbooloo ci seen biir waaw ne ne loolu moom mosuñu ko gis ñu saalix salaf yi doon ko def kon daal liñ ci gën a jàpp daal mooy nit ñi nit ku mu mën doon wala mbooloo bu ñu ñëwee fekk imaam sëlmal ku nekk na nga ber sa jullit bopp beneen laaj bi ci topp nag ñëw nga jégalu samay vocal yëpp a naaw dem appareil bi dafa am jafe-jafe xam naa mën naa am comme dina ko denc suñ ko gisee rek incha allahu ñu jéem cee xool baax na yàlla yàlla yàlla def defal tawfiq